informatisé bala nga koo def da ngay am looy informatisé ah d' li ñuy wax mooy Touba actuellement ñun au niveau de la commune am nañ fa presque plus de 800000 données te itam war na ëpp loolu parce que Touba dëkk boo xam ne nii nee nañ 2 millions de personnes la na gën a war naa fekk tey ñu am lu ëpp loolu donc foofu léegi nag su fekkee informatisation bi la euh, maire bi jëloon na ci ay ay matuwaay ba waxoon na dana recruter ay xale yu bari pour ñu ñëw informatiser euh, waxoon na itam ne ci décentralisation bi dana ubbi ay bureau de décentralisation ba mi ngi ci waajtaay bi effectivité bi nag amagut waaye jàpp nañ danañ am parce que lu ko ñor la ndax xam na ne foofu la foofu la adduna toll Touba itam nekk dëkk boo xam ne nii 2 millions de personnes lañ loolu ñëpp xam nañ ko euh, maa ngi koy wax toujours euh, li ñu war a njëkk a def mooy fexe ba nit ñu xam kan mooy kan ak kuy def lan parce que tant que xamuñu kan mooy kan ak kuy def lan sécurité mënut am ci dëkk bi tant que xamuñu kan mooy kan kuy def lan état li nga xam ne moom la war a jox jox gëdd gi mu war a jox daf ñu koy jox rek à travers Touba chef religieux yi wala waaye duñu ko jox en travers de population Touba dëkk bu toll moom ñu wax ne 529 176 personnes lañ ci statut bi kenn ku ne xam na ne war na ëpp na loolu Touba ñu ngi wax 2 millions de personnes mais pour ñu xam ëpp na ko ak ëpp ko nag il faut que ñu euh, recenser dëkk bi donc recenser Touba dafa mënatu ta ñàkk suñ defee loolu ba pare nag danañ xam ñi wax ne 2 millions personnes lañ ak ñi wax ne 529 167 personnes lañ kan moo ci wax lu normal donc loolu moo tuta ñàkk. non mais Touba actuellement di euh, fii ñu toll nii ñun ñoo ngi ci 18000 personnes yoo xam ne nii ci année bii rek laa wax suñ demee ba nga xam ne dem nañ fin d' année danañ am mil 35000 40000 nouveaux inscrits ci 40 pour cent yi déclaré wuñ donc su 40 pour cent yi déclaré woon kon ñaata la am c' est dire dëkk boo xam ne dafay màgg ni muy màggi Touba moo amul ci àdduna dëkk boo xam ne day nii nag. ne Touba il faut que ñu jox ko gëdd gi mu war a jox ci lépp te état civil wax nañ ne y a un financement euh, de l'Union européenne de 17 milliards kon xam nañ ne Touba 17 milliards yi yaakaar naa 5 euh, milliards yi sax Touba yaayoo na ko